ñàkk caatu Samba Diaw ñëw ñàkk kon bu Hercule ñëwee ñëw ñàkk day am leneen loo xamante ni ah du ko nduru sax waaye day xaw a métti ci waa jaxaw ndax yàllaay joxe ndam kum jox ndam nga am ndam mu mel ni ñu ngi ci biir géew bi ngom moo leen di arbitré père Baba ñu bàyyi la ak antenne bi. Hercule Babylone ngom sifflé na génn seen Babylone sànni na benn kurpeñ mu ngi ngemboo ngembulu xonq li daal di takk lu weex. Babylone mhm. li ma gis mooy Hercule ci kaw Babylone la jëm. Mhm. xaw ma mu ngi bàyyi loolu xel waaye Babylone mbërum mbapat la na Babylone mbërum mbapat la Hercule na moytu loolu waaye xam naa ni garab bu problème di am waa ku laaw xalaatoon naan dina jóg waaye lii lépp cokaas la rek dañ koo yabal da kaa war a takk si waaw. su ma doon Hercule Franc lay jaar parce que Babylone jaar ci kawam ci ak sam dina xaw a diis waaye gis nga xeex na ña ngay xeex ñoom ñaar. waaw te Babylone moo gën a loxo ya gën a gudd. Hercule Babylone Hercule Hercule xeex bi est-ce que arrangé na. door mu daanu mën na fee am de. est-ce que xeex bi arrangé na. door mu daanu mën na fee am. waaw li ci kanam rawati ndax ndax Babylone Hercule. Hmm. ay coup laaw lay door. waaw doorul ay coup jam. te Babylone chaque fois ay coup am bu koy déclenché da koy dóor coup direct la koy dóor da koy jam kon loolu dama xaw jaaxal moo tax ñoom ñaar heure bu ñu dajee rek boo xam boo amul sens kaaw mën naa am. diggante kuy laaw ak ki ki nga xam ne day jam. Babylone day jam ki nga xam ne mooy Hercule day laaw waaye Hercule day ci film yi daan na daan xaw ma nag tay waaw mu mel ni tey jii Hercule boo xoolee dafa nekk ndaama ba pare li muy lem tànk droitam bi li muy lem tànk gauche droitam bi daa bari dafa bari heure bu ñu ko yéegee dañuy jàll heure bu ko yéegee dañuy jàll te garde bi da koy wàcce di trop Hercule day wàcce garde bi di trop day da koy door mu daanu waxoon naa la ni. waxoon naa la ni waxoon naa li ma gis waxoon naa la ma gis boo amul sens door mu daanu mën na fee am waaye na kaaw dafa gaaw li kaaw tëbu la mais nag mën na koo indil problème moom Hercule parce que lu tax loolu Babylone dootul dem te day taxaw di ko xaar te bu ko tëroo bu ko fi Hercule am na maas am na relance te lu nekk mën naa fa xew te Babylone day ko maanaam dafa nekk mbër moo xam mbërum àll la est-ce que Babylone du ñëw kut ko kut pour fayu. du def loolu parce que lii nga xam ne def nañ ko mu bëgg mu bëgg a accélérer fayu. kon sam waru sant loolu. waaw waaw du accélérer pour jéem a fayu. kon sam waru sant loolu. mu nekk Babylone daje nañ ñoom ñaar. wax ka sa dañ. na mu daanu. waxoon naa la door mu daanu moo ci am waxoon naa la door mu daanu moo ci am Père Baba door ko mu daanu waxoon la looloo ci am waxoon nga la ko waxoon nga ma ko xool leen lambalong nga boo xoolee lamb ji lu ma xam ci yow laa ko jëlee te gars nañ ñëw ci yow reyal ko teeñ Babylone ah, door na tey ji daanu mel daan na Babylone mu mel ni loolu ndam la ci waa Jaxaaw mm. ñëw nañ ñaari journée génn ñàkk ko kon ñetteel bi wax dëgg yàlla yàlla may na leen ndam Babylone nga defaru juwaat bi nga fiy jógee ndam nga fi génnee kon tey jii boo ko ñàkkee mu mel ni combat baa ngi noonu ñu pronostiqué Père Baba soo xoolee ku laaw la ko dóor ci monto boo xoolee ku laaw bi day téléphoné droite bi xoolal ni muy téléphoné droite bi appel la ko def appel appel xoolal